xamante ne Luc Nicolaï dañu ko ne dana bari ci mbër yi ñoo xamante mi ngi ci xët mu njëkk réew mi quotidien wax journal bi nettali ñu na mu demee ca pasi ga ñu ko tegee loxo la ñu koy toppee loolu lépp journal bi kon xëy ci dikkaat ak ñun populaire gën koo foyal nañu Luc Nicolaï jamono ji ma nga ca garde à vue ñaari douanier yi nga xamante ne ji ñi ngi woon ci mbir mi ñi ngi leen di déglu place nañu Luc Nicolaï daanu na moom promoteur bi nga xam ne moo daan tëgg ay lamb jamono ji kon ma nga libération Nelik Nicolai, il faut piéger qui nga Bernard Bernard Tulli Bernard Tulli mooy ki un Lamantin il faut que na me un journal bi libération xëy ci direct info moom gis lu gën a kawe moo di Luc Nicolaï ak doole ji mu am ci làmb ji tey bu fekkente ne teg nañu ko loxo journal bi ñu lii mooy xew benn muy mbëree koppar yu bari li ñu daan leen fay loolee dootu mën a euh, nekkati Walfadjri grand place ne ñu ki daan arrosé far nañu ko arrosé maanaam ci gàttal Luc Nicolaï mi nga xamante ne jii moo yoroon xaalis di jaay jom ba ñaaw ci làmb ji bari xaalis mbër mu nekk mu fay la loolook loolo jamono ji ma nga ca loxo yoon xaalis na mu bare Sud Quotidien mel ne ku ñuy xëy dine ko nataalal mi nga portale bi Luc Nicolaï moo ca nekk xaalis bi naaw tiim ko mu bég bay reetaan yéen bi nañu mi ngi noonu lig Nicolas mii ci jëm boppam teg nañu ko loxo keneen ki ñu teg loxo di beccu cuun ca kaso ba ay taalibeem di cantaakoon yi jamono ji fipp nañu fipp ci boppam la ñu def yéen a kaay bi di observateur tax nañu am na lool Abdoul Mbaye ki nga xam ne mooy premier ministre bu Sénégal waxtaane na ko ak Serigne Cheikh Saliou mi taw Serigne Saliou Mbacké di xalifam jamono ji ca waxtaan na loo xamante ne ji junj na wax nañ ko ci diggante Béthio ak yoon ak yu ni moo ci dikk ak ñun waaye nag ba tey beneen journal mu di Walfadjri Grand Place ne ñu Mimi Touré dame justice ministre de la justice na wàcc ca defaru ne cantaako ni jamono ji moom teg bët parce que dañoo gis ne lu ji njaag Mimi Touré moom mooy njaag populaire nañu ñu bëgg gudd moo di Mimi Touré nañu ko jëlee ca bopp ministère de la justice moom soxna soxna si nag di ministre de la justice mi ngi dànkaafu nee na dootuñu nangooti benn yoon nit war a dem di seeti cheikh bi ci rëbës nga mu nekk di fa ay jafe-jafe wala nga fay indi fitna ñu bàyyi moom mi leen mbir dugg ci wàllu tàggat yaram ak stade mi xëy dikk ñu ñun ci mbiru Joseph Koto mi ñu bëri di laaj ana fan lay mujjee ak fédération sénégalaise bu football yéen a kaay bi samp laaj ndax Koto moomee de su ko def entraîneur adjoint maanaam gën ko wàcce ba ca suufa suuf ki nanguwut a wàcce ci suufa suuf moo di triple S doomi double S Balla Gaye 2 mi ngi ci xët mu sunu lambo kaddu kaddu yi nee na bu ko kenn bu ko kenn tëkkale tëkk Eumeu Sène ñu ne ko lu tax mu ne ndax ba ko dépassé yàgg na jërë